loolu nag néew ci suñ loxo ci loxo Sëriñ Tuubaa na waaye li ci suñ warteef nag mooy jéem a góorgóorlu fexe ba ni ko sëriñ bi bëggee mu mel noonu sëriñ Cheikh Abdou Latif leer na léegi waajtaayu mbalem yi ndax loolu mooy li jëkk ci waajtaayu mbalem li liggéeyu màgg bi muy première safara di ajjuma ji ja ca topp kon loolu itam ñu ngi ciy fàttali di ci soññee ñëpp ne ci ñëpp taxawee nañ ci daa taxawee kenn ku ci yàlla nañ ci daa def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 ñépp xam nañ cër bi amoon ci sëriñ bu demee ba àgg ci ñett ñaareel ñaareelu fan bi jëkk màggal gi itam mooy bis bi nga xam ne ci lañ jégleel waa Mauritanie ndax fonk gi leen Sëriñ ba fu mu mu wërtal leen fa kër seen kër bopp loola la sëriñ bi di dundal ba tax at mu jot mu woo leen dajeel leen fa leen taral ña ca doone taalibe ña ca doon soppi Sëriñ bisu màggal gi itam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 bokk na ci li ci ëpp solo it mooy wàllu diplomatie gi nga xam ne màggal Tuubaa dana ko indi bari na ay këri diine yoo xam ne seenu déggoo fii ci màggal Tuubaa la dem na ba àgg ci réew yi ci àdduna sax danga gis ñaari réew yoo xam ne ci liñ mën a xam ñaari réew yooyu seen alaaqa diplomatie dañ ko dagg ba seen diggante dagg waaye bu ñu agsee ci màggal Tuubaa ñëpp nañu bokk ndey baay kenn du xam ne kon màggal Tuubaa li si nekk njariñ kenn xamul lu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 bokk na ca la la war ngay dimbale sa mbokku jullit rawat na sa mbokkum taalibe rawat na sa mbokkum dëkkoo kon sëriñ bi ci soññee di ko digal ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi bi nga xam ne sëriñ Tuubaa nee nag képp koo xam ne yaa ngi bëggee soññee ñun ñëpp ñu maase dégg ko te waay